بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ذكرنا كل ما نسينا وعلمنا كل ما جهلنا mbokki salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu waa Tazkiru Saba ci numéro 463 bi awni rabbi ñu toll woon ci waxtaane waajtaayu tabaski ak li ci aju démb am laaj yu rotoon jëm ci wàllu dimbalante gi ñu ni des na léegi ak yu mel noonu alaakul xaal bala cee ñëwaat pour continuer ko mooy laaj yi rot jëm ci wàllu tabaski mbokk mi mu ni moom dafa gis ci fi ñuy jaayee eh, xar yi ci benn daral camion bi bu ñëwee day taxaw daal ni eh, xar yi ci biir day xam waaye jàpp rek cent mille la ci misaal wala cent cinquante mille la wala nàngam la su ko defee nag bu ñu ubbee rek euh, mu waay jàpp rek euh, nga daal di fay mu ni loolu lu ci saree wax maanaam saree day bañ nga jënd loo gisul nga jënd loo gisul ñaareel bu mooy rawatina tabaski nga xam ni moom euh, am na loo xay bu manqué ci gàtt bi tabaski mu matul am tabaski am nga yàpp waaye amoo tabaski lu dul ci yenn point yi dinañ ñëw incha allah yenn point yi bala na ko fàtte mooy boroom xam-xam yi yenn yi dañoo wax ni bu nit ki jëlal am xaram di ko yeew ko këram julli ba ñëw fekk eh, mu mbëkk dara bi jën ba damm te moom wax dëgg yàlla amul doole yi dem jaay xar mi léegi jën ci maneen mu mat moom dafa néew doole am na ci fuqaa yi boo demee ci def naa fiqul waaye ma ngi ciy indi sax mu ni kooka kon ba tey dina doy moom mi nga xëy amul doole sansewaat xar ma daal mën naa tabaskee xar moom waaye bu dee koo xam nag am na doole am na fa maneen xar wala xaalis baa ngi nii te daal dem rek daal di jënd ñu ni kooka kon day daal di changé xar ma waaye bu dee nag ku néew doole ki xëy amul pexe moom ñu ni kon dana ko doy léegi nag euh, bu euh, camion bi teeree ñun ah, xarit ci biir kat mu waay jël nangam la ah yow neel ma day eh, bëgg naa ci xarit de daal di jàpp mel ni mii day man nangam laa ci man wala ba nga jàppee xool ba noppi gis ci ni matul am tabaski ndax daa manqué mbokk yi nga ni ko kon ah man kat xarum tabaski laa doon wut dàkkoon naa ci njëg gi nag waaye ci kaw lii na ci xar mi nekku ci woon bu la neexee def loolu waaw kon loolu lañ doon ton ci euh, wàllu googu su ko defee wàllu wàllu gàtt yi moom ki nga xam ni dafa ñëw ngir wut si xar moo xam ne moom la toll wala aw béy doon te béy moom duñ ko sóoraale fii ci ndakaaru ba ko dem rek genn kilifa koo xam ne kilifa la fii ci ndakaaru jiite na mbooloo mu yaatoo yaato yaatoo yaatoo liggéey ba traité ñu génn ci jàkk ji mën naa ko waaw ma daal naka xar yi laay dégg rek élage euh, waaye moom bëy yi mun ma fii fii fii ci ndakaaru ne gox bi bii nu ne day ku ko indiyee bëgg ko fee tabaskee mu ni yow yow jëkk génn kër ga waxuma laa bëy wi yow ndax nee xale yi dong dong rek nee na buñ la toppee reeteet la nee na waaw xam nga loolu musiba la kon léegi aada ci boppam moo xam ni wax nañ suñu Babacar Si daan na wax nii Euh, aadatul bilaad ka diin maanaam aada aaday réew mu ne day mel ni diina la ci ñoom te nee na réew mi aada dafee saxi sell saxi sell nag mooy koo xam ni màggat na moo mag na waaye aada jooju nag boo xamee sariya rek wala ngay laajte di nga def aada yi nga xëy lislaam da ko bëgg lool waaye du aada yoo xam ni nag dalay xañ tuyaaba du aada yoo xam ne day juyoo ak ngir nga jëf li la yàlla sant subhaanahu wa taala waaw bëy dara nekku ci waaw nun ñii yàgg na noo yar ab sikket bu ñu sunu waajur jënd ko wala sunu maam muy muy mu ngir lan ngir tabaskee ko weer yooyu nga eh, yor ko di ko xont di ko gubali ah nga xay buñ ko rayee eh, eh, buñ ko rayee am na lu am na luñ la cay daggal jox la ko yaa koy moom yaa koy moom ndax yaa sonoon ci sikkat boobu waaw mbokk mi ni waaw ndax tabaski yàpp yu bari na léegi ñun lañuy def bu ñu tabaski ba pare ñun léegi nan jaay euh, trois kilo yi dem jënd ko soble jënd ko diwlin jënd ko nangam maanaam dañoo tere ku jaay dara ci tabaski bi mbokk mi maneen mi mbóojeen mi ni ma waaw ginnaaw nee na buñ jaayee trois kilos yi ndawal gi dañ koy dañ koy jëndewaat def ko fi kenn sëntu la loolu nii la dañ ciy jaay dara dem jënde ko leneen di ko defaat ci ndawal gi déedéet euh, kan moo ci sañ a jaay ki sañ jaay mooy euh, mbokk mi tabaskiwul ñu tabaski ñu baree bari indil ko yàpp moom mu dem sañ naa jaay ci ndawal googu ñu ko jox ngir lan ngir mu am lu mu boole ak ndawal gi moo waa këram dundee ndax am na ngànt ba tabaskiwul wala faqir la wala yu mel noonu waaye yow mi ko moom daal sam xar daal wala soo bëy wala li nga tabaskee dañuy tere nga dem nga eh, jaay ji dara ñett yi ñu waxoon rek ci njaal njëlbéen gi la dinañ ci lekk dinañ ci denc ngir ëllëg waaye dinañ ci saraxe ngir yàlla waaye duñ ci saraxe ngir tudde ko tànkum njëkke ndax kat ñaari jabar yi bu ku ne eh, jëlee benn tànk jox ko eh, njëkkeem boo amee ñetti jabar noonu wala ñeenti jabar xar ba kon léegi lu ca waa kër gay dese xar bu ca ñeent tànk jógee wala bay lu ca des moo tax am na aada yoo xam ne war nañ koo xoolaat aada yu bari fii ne xewwi na ndax lan jamono ko xewwi xoola bu jëkk lañ laa wax jëlib dawal xam naa boo demee sëñ daam jeeg ñoom dinañ xam jëlib dawal bu seet Moussa ñëw la muy def ak lañ koy def lu ci bëree bëree bëri léegi teen wen daa léegi teen ya nekkatu fa robinet fa nekk yu bëree bëree bëri léegi eh, eh, jamono moo ko fi jële waaw yenn yi ni ñu dëkkee woon bu njëkk moo taxal oh, oh, mu mën a nekk waaye léegi mënatu la nekk yu ci bare nag noonu lay mujj def rek waaye saa yu benn aada faatoo am na bu bees boo xam ne danga koy gis ñu daal koy taxawal rek yu si bari nag suñu mbokki jigéen ñoom ñoo koy taxawal waaw jëkk rafetal na bu jëkk Modou Fall mii tabaski na ab soo may sëy fële ak xalifaal seen jëkkër sax xañ a tabaskiwul wala seen jëkkër day as mbay la yor as mbay te jaboot na lool Modou Fall nag daal di eh, jox ab sa mbóoj mii muy denc ab tànk nag ngir mu dem jox ko nag euh, jigéenam ba lay sëy jigéen bi nag di laa sama sama sama sama jabar ji moom indi lii sa jabar ji mu ni mu ah mooy sama njëkke li moom laa fi wàcce ji mooy nanga mooy nanga ñu fexe ba dugal ko ci tabaski waaye bokk ci wax naa ko mbokk mi ni man nu may def man ko yow bul ko tuddee tànkum njëkke na bokk ci xaaj bi nga xëy dañ koy saraxe euh, li nga fas ci sa soxol rek mu am solo waaye bañ nga bañ ko tudde neen amul solo amul solo ndax ginnaaw eh, sa njëkk la jox nga ko kay kon kay moo wax ko ni ko mooy tànku njëkk bi ak nga ni ceel ah, kon da fas ni yow joxewoo tànku njëkk waaye li nga jox waaw nga ni kon ki nga xam ni ah, boo ko joxul boo ko joxul tànkum njëkkee di ko dégg wutal sa ñeenti téeméer wala wutal sa langa nga la nga tolloo rek nga jox ko ko ndax la ndax nga bañ a génn sart yi ñu wax ni eh, kenn lu ci def nangam nga bañ ko caa def nga génn sa alali bopp nga jox ko sax moo gën nga dagg ci yàpp wi jaay ko wala nga dagg ci def ko muy aada joo xam ni loolu eh, du aada ju ju ju ju dëppoo ak lislaam léegi nag ñaar la ki joxe tànku njëkk bi ci nii ma ko waxee loolu aada ju rafet la waaye gi nga fi jamono toll léegi nga xam ni ah la tax mu joxe ko pour wol leen ni leen sama xar nii la toll sama jëkkër nangam ah bëgg bëgg ku ko ci gërëm yu mel noonu ngistal daal cay dugg naw boppam dugg ca aada boobu moo baaxul waaye bu njëkk ba baaxoon na mu ngi mel ni rek li ñuy wax ndoxum tool ndoxum tool nun béykat yi xam nañ ko ndoxum tool mooy waxtu wii nga xam ni toll nañ ci bu gerte gi buñ ñu jiyee nag bay bayaat ak yu mel noonu sa càmmiñ yow mi jigéen mën nga mën nga jënd sax ginaar walla euh, kilo café ak ak kilo suukar wala juróomi saabu wala juróomi kilo keccax wala euh, yu mel noonu daal di seeti euh, sa càmmiñ yow jigéen ji dem dal ko ko jox ah diw dafa indi la diw ndoxum tool kon dem tool jot na fañ nekk ci tool la nga leen di jox tudde ko ndox ñu di ko naan waaye lii nag mën naa bàyyi doon am ndox sax te lu doon am ndox nag wax dëgg yàlla bu bàyyee ba ñoral nag ba bàcc walla ba góob ba jaag bu ñuy boj bi wala bu ñuy jëri ah bu ñu jëlee ba noppi mu joxe wàcce nii nag wàcce nii bu ñu joxe wàcce nii ba noppi nag eh, am na nag lu muy beral nag jigéenam yi ko joxoon doomam tool xam nga jooju aada rafet na léegi sax xam naa boo demee euh, boo demee xewwi na boo demee xewwi na léegi xam naa yooyu yëpp dafa rafet waaw dafa yi nan ñaan suñu boroom toroxlu nawet bi gis nga fi mu toll nii am na ñu tàmbalee la jigéen tàmbalee naa yàqu te yàlla tawam bii moom yaa ngi dégg fële ci euh, ci Inde la xaw ma ñoo xëy dañoo tawa taw ba Inde na ba Euh, téeméeri téeméeri junni nit amuñ fu ñu dëkk ba état ba moo leen jéem a jox fu ñu dëkk ñu ngay xool ña faatu yàqule ca ndox ma waaw Sénégal mii ak réew yu bari ñu ñu ngi ko soxla lool loolu nag mooy yàlla mbokk yi bu yàlla daa programme lii avant nawet bi ñëw mu jaar ci yoonam rek gis nga ko kon ab jaam nag sañ naa torox lu ñaan tuub ak sarti tuub bàyyi li ngay tuub mooy bàkkaar yi waaye rek sëñ bi nee na jàng kaamil saraxe foofa nga yem waaye fa nga jàng kaamil ba euh, boo jógee te la nga nekkoon ca ngay nekk kenn mënut a tere nga tas nit ñi yaa ngi nii fi toll nii tey jii nii ku jóge woon Ndakaaru jëm Touba bu amee deux mille francs dem waaye bu altine walla talaata ku amul cinq mille boo jëmee fële Kaolack boo jëmee Touba boo jëmee nangam euh, di ko rëccu loolu fu ñu ko teg fu ñu ko teg. bu fekkee ne ñun bu ku ku jekku sa morom rek daal di dagg ah boppam ah aca am na ñu tàmbalee kaas di wax ni bala ñoo bàyyi jur gi ñu dugg ci réew mi dañoo war na xool ba xam ndax li fi ne est-ce que doy naag doyul di wax wax yoo xam ni wax dëgg yàlla di def ay daba ci télé yi contre lool jur gi ñuy ubbil frontière yi ñu koy indi bokk yi ku ne xam na ni jur gi dugg ci Sénégal baax na fi Sénégal niñ jël tabaski bi réew mépp mépp niñ ko jëlee amul mëneen réew moo ko jëlee noonu amul amul moo tax réew yu ñu wër muy Mali muy Mauritanie xam loolu di indi jur gi te indi jur gi ñu indi day baisse prix yi ñu fi fekk rek waaw ñu Sénégal am na lu day ndax ñiy yar ak ak éleveurs dañ leen di war a lu ba ginnaaw nombre bi ñu soxla mu dugg si ñu man naa am fii ay mbokk yi loolu ëpp naa xalaat fan yee déggan nga fi ñuy wax ni nañ fi génn euh, euh, compagnie boobu ñuy wax ma onu muy jaay jaay mu gën a yomb seen jaay moom ñu wax ci nga xam ni bu leen état bi dégg leen ñooñu jóge nañ fi waaw léegi commerçant yi wax ni léegi na fi ñu jóge population bi wax ni na fi ñoo ñu toog ñoo gën a bari bokk te euh, majorité léeg-léeg dañ ko war di bàyyi xel te ñiy wax ni euh, na toog ñiy wax ni na génn ëpp doole ñoo ëpp doole ci wàllu financement kon fàqir yi mi ngi ëpp si ni na ñuy toog loolu lu mat bàyyi xel waaw lu mat a bàyyi xel kon bu mu réew àggee foofu ndax jikko yàqu mooy yàlla gu bari war na ni jàngat xoolaat suñu bopp seetantal nag waaw lu xew mbaa lii du nun ci suñu boroom subhaanahu wa wax lépp ci alquran wax lépp lépp lépp ci alquran te innama al umamul ma baqiyat wa in umu daabat axlaaqum ba aboo bi ama sa buñ koy tàgg ko kañ wane mi ngi def lu am ci kaw suuf daa fekk jikko yu rafet na yàquwul buñ demee bu jikko yu yàqu nag nee na lim baa fa nekk rek waaye dara nekkatu fa ci euh, lu am solo lu jar wax ñu nag suñu jikko yàqu na suñu jikko yàqu na rek ku jekk sa moroom def ko ko ku jekk sa moroom def ko ko yépp ci côté commerce ci côté borom métier yi rek ba atta ñenn ci ñuy atte sax ñoom it ña ngay xaar masalan euh, fu fu fu ger gi gën a dune rek ñu jëmale fa rek seenu dëgg te loolu mënut a am mënut a am kat taxaw ci tëli bi jàppandoo ñaari oto ki jëkk a joxe nga bàyyi ko ki jëkk a gere nga bàyyi ko mu dem loolu mbokk yi du dëgg du dëgg xamoo dara jàngoo diine ragaloo yàlla jaaxle tax nga dugg ci wàllu ñaan hmm, di di sëriñtu ak a jibar di wax wax yu garaaw nit ñëw ngay tàndale di wax jënd sa téere seet loolu fu loolu fu ñu ko teg fu ñu ko teg wax ni mën ngaa jàngale eh, di jàngale ndekete am na loola tax a jóg waaye jàngal xale yi ak jàngal alxuraan taxulaa jóg te sam jàng loolu fu ñu ko teg te lii lépp am na fi wana ni yow ci kër gu kër gu ñu yaakaar di leen topp am ak njaboot tuddi leen ay taalibe la ba tax nga mel sa melokaan wii jël taalibe di leen teg loo xam ni wax dëgg yàlla yaa ngi koy jënd ji ay jasineer yaa ngi koy jënd ay chaîne or ah, yow yaa ngi am ay colo sax loolu fu mu tegu fu mu tegu nañu xoolaat jikko yi mbokk yi nañu xoolaat jikko yi xoolaat jikko yi kat ndax lii xew léegi nii kat ah mbokk yi ëpp na xanaa di dénk rek waa taskiru saba ak yeneen groupe yëpp ñu góor góorgóorlu ci kaami alxaan yi ñuy jàng ñu bu gën koo fonk bu baax ndax boo xefee rek di nga jeexal sa temps bi ci loo xam ni man naa bañ a jeex waxtu wi dab nañu kot kon wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.